kii jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyuwaat di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax nekk ci solution TV comme ni ñu koy defee alarba junne bu 21h jotee seen émission focus euh, tey jii ñu gal dalal professeur Babacar Guèye bokk ci société civile bi jiite aar sunu élection mais aussi doon professeur de droit constitutionnel ah. Euh, doon constitutionnaliste tey jii doon suñu gan ñu fas yéene waxtaanee élection yi jëm ak aar élection ak lan la ci yoon wax ak constitution bi ak Macky Sall ak li ñuy xaar ci moom di dinañ ko waxtaanee ak moom Omar Boun Khattab Gueye moo leen koy présenté euh, di nuyu suñu gan professeur Babacar Gueye professeur ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay sant Omar. <coughs> di la ziar bu baax di am mbégte nag euh, sa teewaay. jërëjëf. waaw ah, mu doon un plaisir tey jii ñu fas yéene nag waxtaanee xam-xam. waxtaanee te taxawaayu aar élection démb ngeen doon janoo ak taskatu xabaar yi. Hmm. ci njadoo bi seen kàddu dafa nekk ci daje ci lenn mooy le 3. mars ñu mën ci amal élection yi mm-hmm. est-ce que lu possible la bu dee nii délai yi ñu am dafa gàtt euh, laaj boobu mooy laaj bu njëkk bi. waaw lu possible la. comment maa ngi lay sant Omar bu baax di mm-hmm. di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. Mm-hmm. Euh, le 3 mars bi. date bu baax la. mooy date bi nga xam ne. moo ñuy permettre ñu respecter article 31 mhm. de la constitution ndax article 31 de la constitution bu mhm. constitution ñu sartu sartu ndey réew mhm. dafa ne élection yi dañ ko war a def quarante cinq jours au plus avant euh, expiration wu mandat wu président de la république wala trente jours te bu ñu jàppee le trois dañu nekk ci trente jours pile avant euh, euh, fin wu mandat wu président de la république moo tax ma jàpp ne le 3 bu baax la. Mhm. voilà rax ci dolli. Mhm. Euh, dañu le 3 bu ko jàppee yi tamit. Mhm. dinañu laal tuuti ci campagne électorale bi. ci durée campagne électorale bi. Ah, di ma wax ne durée campagne électorale bi dañ ko réglementé. waaye ñi defoon requête. bi ñu def requête bi bi ñu ñu doon attaqué euh, euh, loi bi ñuy voté woon con devant le conseil constitutionnel. Mm-hmm. ñooñu dañu d'accord dañu nangu ci seen requête nangu ne ñu wàññi seen euh, seen durée campagne électorale ba noppi donc wàññ bi déjà am na consensus. ci mm-hmm. candidat yi. Mm-hmm. waaw moo moo moo war moo tax daal jàpp naa ne le 3. mooy date bi nga xam ne moo gën moo mooy indi sécurité juridique. Mm-hmm. mën nañ ko def le dix waaye dafay laajaat ay waxtaan dafay laajaat ñu ñu comprimer bu baaxaat euh, kii délai yi. Mm-hmm. laaj waxtaan laaj également ñu ñu dem ci conseil constitutionnel euh, pour pour laaj ko ndax dinañ mën a euh, def élection bi le dix parce que bu dee le dix du ñu am trente jours yi nga xam ne. moom la ñu prévoir ci article 31. Mhm. léegi conseil constitutionnel boobu pour pourquoi ngeen dem di ko laaj moom moo yor le dernier mot wala parce que moom bi mujjee génn dafa wax rek dans les meilleurs délais. Mhm. jàppul benn bis. Mhm. loolu nag indi benn confusion ci xelu nit ñi ci maire délais lu sori la wala lu jege. waaw waaw xam nga conseil électoral conseil constitutionnel mooy juge de l'élection. Euh, te saa yu ñu demee ba am jiixi jaax am difficulté. war nañu mën a delluwaat ci conseil constitutionnel comme ni ko. Mhm. Euh, président defee rek euh, bi ñuy bi ñu dëgmalee élection législative yi en 2017 bi ñu amee 47 listes xam nga ñun dañu dem def simulation. pour pour quarante pour 47 nit ku nekk électeur bu nekk bu waree jël 47 listes. Mhm. ñu def simulation bi ñu defee similation ñu ñu am comme résultat que élection bi dina dina dina euh, jël ñaari fan. Mhm. te loolu méngoowul ak lii constitution bi wax biñ ko defee. Mhm. dañu dem euh, loolu ñu fexe ba euh, président jot si bi ci président jotee dafa bind conseil constitutionnel laaj leen lañ la ñu mën a def ci la conseil constitutionnel waxee ne comme noonu la ne ku ne électeur bu nekk mën na jël cinq listes. cinq kii euh, kii euh, euh, nu mu tuddati. cinq bulletins cinq bulletins mën na jël ku ci nekk mën na jël cinq bulletins. mais loolu conseil constitutionnel bi moo ko wax. te binduñu ko ci ci constitution bi ñu ko ci code électoral bi. moo tax ma ne moo ma ne la fii tamit mën nañu delluwaat ci conseil constitutionnel bi pour laaj ko. mais mais le problème mooy bu dee ni tey le deux la wala le trois. par exemple léegi un mois des ci élection yi un mois yooyu des ci ñu war a campagne normalement publication liste résultat définitive yi est-ce que bu ñu toppee loolu wala le 10 ba ci le 10 bi président de la république bi fi ne nekk le président sortant est-ce que loolu du tax moom bu eggee le 2 te mbir yi sottiwul te loi bi dafa ne mandaam foofu la bëgg a yem war a yem est-ce que du indi complication. bu dee le 3. Hmm. ci ni ma la ko waxee. Hmm. mbir yi dina sotti avant le mbir yi dinañ sotti le 31 wala le premier. mais dañuy wàññi durée campagne bi. dañuy wàññi durée ca bu dee la xam nga durée campagne bi wàññeeku na déjà. Mhm. parce que fu mu nekk nii bu ñu bu ñu demee bu ñu defee le 23. Mhm. ba bu ñu def le 23 bu ñu defee le 23 durée campagne bi 9 jours lay doon. 9 mhm. jours lay doon bu bu ñu defee bu defee 9 jours euh, après ñu ñu dem ci ci ci élection bi. moo tax. Euh, euh, donc euh, bu dee le troit bu dee le 3 le le 24 la ñu def deuxième élection deuxième tour bi. Mhm. bu ñu defee le 24 deuxième tour bi le 31 ñu am euh, résultat définitif. Mhm. le 31 wala le premier ñu am résultat définitif bu ñu ko amee le 31 wala premier ñu ngi toujours. ci délai ci mandat wu président de la république mandat bi dama lay fàttali ne le 2 avril lay jeex boo ko defee le 2 wala le 3 avril président bi euh, def passation de service ak président bu bees bi donc bu dee le 3 daal foofu la am sécurité juridique. Mhm. mais le 10 tam mën na nekk mais dafay laaj ñu comprimer délai bu baax a baax. Mhm. mais mais bu weesoo loolu dafa am un problème ñu bëri jàppoon ni le président de la république Macky Sall. comme conseil constitutionnel da ko jox cër ginnaaw ba mu neenalee li président sàkku woon ci ni le 15 incha allah la ñuy dem élection le 15 décembre. Mm-hmm. mais cër boobu mu ko jox mooy bàyyi ko bisu élection bi ngir mu tànn ko nekk maire délai maire délai boobu lan lay tekki. waaw maire délai boobu gars yi ñu ngi ciy polémiquer. maire délai boobu boo koy wax da nga koy da nga koy lëkkale ak considérant 14 bi. Mm-hmm. te considérant 14 bi dafa ne report. mënul weesu mu fin wu mandat wu président de la république. le avril donc le 2 avril. Mm-hmm. ak report lu mu lu mu gudd gudd le 2 avril moom ala kulli ali mandat président bi day jeex kon bokk meilleur délai mooy ñu fexe ba fileex le 2 avril ñu organiser élection yi ba le 2 avril président bi mën a euh, joxe leen le 2 avril wala le 3 président bi mën a euh, jox lenge yi ki koy remplacer. Ah, léegi loolu lay signifier mhm. waaw léegi gaa ñi dañu spéculer rek ci affaire meilleur délai lan lay meilleur délai daal mooy fexe ba lépp ñu mën ko def ci diir bi diir bu léegi diggante bi léegi ak le 2 avril jeex na. mais loolu est-ce que président Macky Sall mi ngi ci parce que ñu bari ma jàppal ni day guddal mbayum noor parce que depuis booba ak léegi mi ngi woote di petoo ay nit di waxtaan ak ñoom. di des fois sax mu woo ki koo xam ne nekkul candidat loolu di di poser question mooy ba tey ji waxaguñu kañ la ak naka la ak nan lay nar a demee des fois ñu ne dialogue des fois ñu ne consertation yow si sa jàngat est-ce que Macky Sall am na lu ko tënk ci waxtu yi. am na lu ko tënk. mooy mooy le 2 avril. le 2 avril moo ko tënk. le 2 avril. mais moom dafa mel ni yàkkamtiwul dara ko waaw fu mu nekk nii. waxtaan est que xaj na fi waxtaan bi ñuy wax nii. surtout que la liste elle est waxtaan bi xaju fi liste bi comme ni nga ko waxee elle est définitive. Mm-hmm. conseil constitutionnel jël na décision. Mm-hmm. décision conseil constitutionnel kenn mënu ci dalu gannaaw. article 92 bu constitution bu Sénégal moo ko wax moo ne décision bu conseil constitutionnel. xasee jël décision jeex na kenn mënatu ci dara te conseil constitutionnel bi maa ngi lay euh, préciser ne ci lool la nekk ba léegi moo tax démb xaw ma barka démb bi euh, benn candidat bi. loolu dinaa ci dellu si mooy Rose Wardini waaw désisté hmm. dafa jël directement tout de suite benn communiqué pour wane ne voilà am na ku désisté léegi amatuñu vingt waaye léegi dix neuf candidats lu ñu am. moo lay won ne conseil constitutionnel fu mu tegoon tàngam mu ngi fa teg tànkam ba léegi. Mm-hmm. waaw léegi président nag moo war a góor góorlu organiser élection yi pour que la 2 euh, 2 avril mu mën a dem ci jàmm mën a def passation service bi ak ak euh, ki koy ki koy ki koy remplacer. Mm-hmm. kon waxtaan pour yow xaju fi te jaru ko. waxtaan bi jaru ko wax walla waxtaan bi daal bu bu bu amee nañ ko waxtaanee ci date. fexe jël date waxtaanee euh, naka lañ koy defee processus bi délai yi naka lañ leen mën a raccourcir nañ leen leen leen mën a wàññee ba élection bi ñu mën ko def diggante bi fii en le 2 avril loolu mooy tax ñu respecter constitution mm-hmm. leneen lu ñu fi def dañu jàlgati constitution bi. Mm-hmm. mais dafa am euh, mbirum Rose nii don un problème bi mu démissionné na dematul ginnaaw coowal nationalité bi ko jàppoon ñu gis waa PDS euh, ñëw ci considérant 18 ans bu ma juumul wax ni bu dee ni dafa am benn candidat bu décisé désisté euh, processus bi dañ ko war a reprendre waaw est-ce que loolu waa PDS wax lu am la. dafa mel ne conseil conseil rek xëy na tontu leen mais ñoom fi ñu sukkandiku est-ce que fu dëgër la. tëgarul foofu taxawul euh, conseil loolu ñoom ñoo ko wax loolu du lu ko conseil constitutionnel dafa wax ne ñoom ñooñu ñoo jàpp ñoo wax loolu waaye euh, lii mën a tax ñu ñu dandal ñu reporter élection yi mm-hmm. mooy candidat bu wàññeeku maanaam bu décédé bu décédé mm-hmm. wala candidat bu nga xam ne dafa dem ba gagné daal ne daal di renoncer daal di bàyyi. Mhm. ne bàyyi naa sama ngañaay bu boobaa dinañu mën a organiser élection yu bees waaye fu mu nekk nii condition yooyu euh, gisaguñ ko. parce mhm. que bu condition yooyu taxawee dinañ ci waxtaanaat. waaye fu mu ne nii condition yooyu amagul. Mhm. kon moo tax li ñuy wax taxawul teguñu ko teguñu ko fenn. am na lu ñuy théoriser mooy reprendre le processus. maanaam à zéro parce que bu nu weesoo le 2 avril élection amul am na ñu ne mën nañ ko reprendre à zéro ñu xoolaat euh, nan la ñeneen di bokkee parce que dañ ne même ci biir concertation yi sax dañ pour une élection inclusive maanaam ñi war a bokk ñëpp bokk est-ce que loolu am na ginnaaw ba conseil constitutionnel defee liggéeyam ba pare ci nit ñi ñooy candidat est-ce que mën nañu reprendre le processus wala bu dee am ci yan anam lay amee. élection yi daal li ma la mën a wax mooy bu ñu ko bu ñu ko deful d'ici le 2 avril. jalgati nañu yoon jalgati nañu yoon jalgati nañu constitution foog ñu def ko fileex le 2 avril parce que bu ñu ko deful fileex le 2 avril loolu mooy euh, jalgati nañu euh, décision bu conseil constitutionnel jox te décision conseil constitutionnel comme ni mu la ko waxee mm-hmm. euh, sànq décision bi ñëpp lay tënk pouvoir public yëpp lay tënk président bi ci la bokk ci pouvoir public yi nga xam ne euh, euh, décision bi dañ koy tënk. Mm-hmm. bu ñu tenir bu ñu deful élection yi fileex le 2 avril jalgati nañu yoon jalgati nañu décision conseil constitutionnel. mais am na ñu ne conseil constitutionnel. loolu moo ñu waroon a dimbali. parce que qui peut le plus peut moins moom bi mu demee ba ne rek euh, li jëm ci convocation corps électoral beeg décision yi nguur njiitu réew mu jëlam yooyu yëpp teg na ko fële nan def élection yi moom dafa doon jàpp bis est-ce que conseil constitutionnel am na droit jàpp bis. waaw mënoon na ko def sax ba parce que bu constaté carence. Mhm. mën na mën na mais conseil constitutionnel bi fii dafa jox cër. njiitu réew mi njiitu réew mhm. daf ko daf ko delloo cër moo tax mu delloo ko lenge yi ne yaay njiitu réew mi yow yaa euh, jëloon euh, décret. Mhm. pour euh, convoquer corps électoral bi léegi dañ lay bàyyi nga jëlaat beneen décret pour convo convoquer corps électoral. waaye nag attention foog nga def ko dox def ko ci diggante bi léegi ak le 2 avril parce que le 2 avril la sa mandat di jeex war a fi toog euh, lu weesu le 2 avril. Mhm. léegi le 2 avril dafa am maître Doudou Ndoye lu mu wax bu buñ ci eggee te amuñu beneen président président bi nekk en exercice wala le président sortant day wéy. di jiite même bu dee les affaires courantes mais day wéy di nekk njëtu réew am ñu ñeneen ñu génn comme yéen jàpp ni le 2 avril bu ñu ko weesoo moom mënatul nekk président werante boobu ci constitutionnel ak loolu Doudou Ndoye wax te Doudou naw nañ ko ci xam-xam mais kàddoom yooyu mu génnee aussi tamit gën a yokk polémique bi. waa boroom xam-xam la sama mag bu baax la. Hmm. waaye dama jàpp ne fii dafa juum. Doudou dafa juum. waaw dafa juum ndax li muy wax article 36 boobu mooy muy évoqué. Euh, mën nga ko évoquer ci kaw mu am élection yu normal mu am élection yu normal ñu élire président mhm. président boobu toogawul par exemple bu ñu bu ñu defoon élection yi le vingt cinq euh, février doonoon nañu pare élection yi yëpp mhm. te président bi du àgg ci fin au mandat mhm. mën par exemple mënoon nañu terminer ay ay le vingt cinq noonu bu ñu terminer le vingt cinq du le vingt cinq la la la le président bi di di joxe lenge yi. dafay xaar ba mandaam jeex. mu door a joxe euh, lenge yi bu ko defee kooku euh, président bu bees bi mën a installé. article trente six loolu la prévoir prévoirul situation bi situation bi. situation exceptionnelle la. prévoir article trente six prévoir ko te article trente six boo koy boo koy lire doo li doo seppi euh, deuxième alinéa bi yëpp. rek daal ne comme élection amul wala defuñu ko ko 2 avril kon président day toog non non non foog nga xool lëkkale premier alinéa bi ak deuxième alinéa bi article 36 bi yëpp daanaka élection yu ñuy def dans des conditions normales la la lay lay euh, organiser noonu lay lay lay prévoir noonu wone ne bu bu ñu bu ñu élire président bu bees du toogan yi dafay toog ba mandat wu jeex bu ko defee mu dooroo def passation euh, de service ak mandat ak ak ku bees. mooy fii daal mooy li ñuy wax naan situation exceptionnelle mesure. mesure exceptionnelle waaw. non bu bu loolu li muy wax bu amoon. Hmm. dañuy nekk ci vide. vide juridique hmm. dañuy nekk ci ci benn impasse. parce que du situation bu ñu bu ñu prévoir te bu boobaa. dégg naa ñu koy wax tamit président assemblée nationale du mën a toog parce que président assemblée nationale pour mu nekk assurer intérim foog mu am décès empêchement wala démission. Hmm. ñett yooyu rek. te ñaar yooyu yëpp nekkagu fi. te ñett yooyu yëpp amagu fi. kon tey moo tax moo tax ma ne la boo boobaa président assemblée nationale du mën a remplacé Euh, président bi fi nekk te président bi fi nekk tam du du mën a continuer di toog parce que dootul amati. légitimité léegi lan mooy xew nag. dootul dootul kenn du bàyyi réew amati base légale pour mu toog pour pour mu continuer di toog loolu moo tax ma ne euh, ànd ànduma ci bu doon naa ko wax sax démb benn journaliste doon na muñ ko laaj may waxtaan ak kenn ci sama sama xarit yi benn journaliste bu bu bu tegginewul ñëw euh, enregistré nañu en euh, ci te te te li ñu doon wax. làquñu ci dara. moom laa lay wax fu mu nekk nii euh, ànduma ci interprétation bi maître Dundoo yi def. ànduma ci jàpp jàpp naa ne dafa juum ci interprétation mhm. mais loolu est du yokk polémique bi parce que yéen ñëpp yéen bokk fa ngeen jàngee mooy bi kii waxee lii kii wax lee loolu lan moo koy indi ci troisième mandat noonu la woon ci fii loolu la woon la qu'est-ce se passe waaw waaw mais xam nga euh, droit dafa bari ay sew-sew droit dafa bari ay sew-sew. beneen bi mooy parallélisme des formes danoo gis ni Macky Sall bi muy yóbbu élection yi la 15 wax ni dafa am crise yu ne mu dugg ci waxam yooyu mu wax affaire Rose Wardini commission d' enquête parlementaire mais bi conseil constitutionnel gënaatee danoo gis Yaro Dia bind am na ñu ne ci parallélisme des form fee waxoon na mais dafa war a génnaat wax ak nit ñi wax lu lay. est-ce que wax jooju li ñuy xaar ci moom la wala ni mu ko defee noonu la génnaat wax ak sénégalais yi. prési président génnaat wax ak sénégalais yi. bu ko jaree pour euh, pour leeral euh, mbir yi. pourquoi mm. pa mais mën na yam ci ci communiqué pour pour qu'on qu'on euh, communiqué date rek bu dee dat rek. rek rek la mm. la bëgg communiqué date bu bees. Mm. pour élection yi. soxlawul sax mu mu wax ak nit yi. mais ñu jël décret rek wala mu jël benn benn wala ñuy président jël communi communiqué daal ne fixé nañu date bi à à waa ci ci bés sangam. mu mhm. ko defee nit yi ñun gars ñi préparé wu pour dem ci élection yi fi mu nekk nii ay ay guddal wax ay ay négociation ay ay dialogue ak yooyu yëpp jaratu ko fi mu nekk nii temps bi dafa xat ba nga xam ne. lu luñ ci yokk rek euh, day day tax élection yi euh, du mën a nekk day moo tax gudd euh, waxtaan yu gudd yooyu wax pour guddal waxtaan bi ba cëppaandaw cëppaandaw ba ñu ne waaw comme dañ doon waxtaan pour ut consensus léegi am nañ consensus waaye élection mënatul am man loolu laay bañ parce que hmm. loolu ba fu ko defee jalgati nañu yoon maanaam yow yaa ngi njortu ñu dem ba waxtaan wu daanu ci président déggoo ak ay nit ñu ne élection yi mënta am dañ koy defaat. waaw parce que mais loolu mënu ko mënul nekk. parce que élection yi. non non xam ne li mënta ne moom def na ko ba pare. mooy le 25 la woon. waaw fi mu sukkandiku woon dara baaxu ci. waaw ba conseil constitutionnel ne ko fi nga sukkandiku woon pour pousse élection yi jaaduwul. waaw mais ki mën loolu war mën na leneen. parce que waxtaan bi nga ne amul sens te moom waxtaan bi da cee tenir te le conseil constitutionnel est-ce que nekkul ne moo indiwaat problème le fait ne les acteurs. nan dem concerté wu. non xam nga waxtaan bi. mën waxtaan bi mën na gaaw mën na mën na durer deux jours quand ñu ci nekk ñi nga xam ne euh, dañ leen euh, ñoom mooy ñuy wax ne dañ leen spolier. Mhm. maanaam seen parrainage euh, dañ leen dañu jalgati seen parrainage yu ñu joxe woon ñooñu mën na waxtaan ak ñoom benn bés. mais lan lay wax ak ñoom. est-ce que des du nekk le mot. xanaa leen. defal leen parce que parce que mënu ci dara moom wax na ne mënu ci dara njëkkoon na leen ko na leen ko wax nee na mënu ci dara décision conseil constitutionnel la moom mënu ci dara foofu la war a continuer di tënku warul changer attitude. mais am na ñu théoriser naan peut-être mën na reprendre le processus Karim bokk bokk Sonko bokk ak yooyu loolu mënul ne. ma ne yooyu mënul nekk nañu nañu respecter état de droit nañu respecter état de droit. ñu respecter sénégal yi respecter état de droit amul dañuy dugal Sonko amul dañuy dugal euh, keneen conseil bi jël na décision le 20 on s'en tient à la décision du 20 nañu jàpp décision du 20 mooy bés bi nga xam ni moom ci la arrêté 20 candidats yi léegi am na ku désisté wu conseil jël na ko en considération jël na ko jàpp naa ne léegi dix-neuf ñooy ñoo ñooy nekk comme candidat nañ ngir yàlla nañu dem ci élection yi ak dix-neuf yooyu deux mille dix-neuf amoon na ay contestation vingt-sept la ñu woon mhm. ñu jël ci cinq amoon na sax ko benn kuréel gu tuddoon vingt cinq waaw ñu contesté def tëgg tëgg ci taabal yeex lépp mais dara rangé wu rek mais dara euh, conseil bi dafa dafa arrêté décision bi ñu dem ci élection yi nañu def la même chose fii ñu fi indi ay ay ay problème yu nga xam ne amu fi. problème amu fi. amul fi problème te comme. amul c'est comme crise bi ñuy wax tamit amu fi. mais crise boobu crise bi xam nga kañ lay am. Hmm. bés bu ñu jéggee avril te président bi organisé bu boobaa ci lay indi crise bi te bu boobaa président mooy doon responsable parce que moom moo waroon convoqué. corps électoral bi te convoqué ko foofu lay amee crise crise bu grave la nar indi foofu mais ci crise bi euh, ni ngi ko doon théoriser naan crise ak kaw mais yow yaa ngi naan après le 2 avril mais est-ce que nekkuñu ci actuellement nii non amuñu crise parce que ñu ngi ci impasse kenn xamul kañ la ak naka la non non aw newuñu ci impasse dañu xaar rek président jël date mais date boobu nag institution institution yépp ngi fonctionner dégg ngeen Euh, garde des sceaux démb mu def conférence de presse mooy garde des so lépp ngi fonctionner dégg naa ne sax am nañ ku ñu arrêté te euh, démb tey xaw ma voilà parce que nee na nee na woon lancé nañu ay mandat d'arrêt ça veut dire que les les toutes les institutions fonctionnent mm-hmm. institution yaa ngi fonctionner conseil constitutionnel démb rek xaw ma barka démb rek la la jël benn arrêté pour ne ah comme comme euh, Rose Wardini nekkatul candidat donc dindi nañ ko ci liste candidats yi léegi dix-neuf candidats moo am. mettre à mettre à jour liste bi. oui mettre à jour liste amul benn crise te ma ma dolli la candidats yi jot nañu euh, fichier électoral bi. jot nañu dégg naa sax ñu ne jot nañu carte électorale bi man Amadou baa gis naa ko bi ñuy dajee ak euh, euh, candidat wu le le groupe des quinze mu ne ma ñun mu ne ma jot naa fichier moom si boppam mu ne ma jot naa fichier électoral bi donc ça veut dire que institution yaa ngi fonctionner administration baa ngi fonctionner te moo la dara tout le matériel électoral et déjà prêt. kon luy xaar. dara lu dul dat bu ko defee ñu convoyé la lépp même carte euh, kii bulletin bulletin de vote yi. pare na lépp pare na xanaa date bi le vingt cinq boobu février te bu boobaa euh, bu président bindee conseil constitution laaj ko ndax nañu conserver parce que tamit mu mënuñu euh, tirer waat dix huit millions de de de bulletin bulletins def loolu xaalis yàq xaalis président mën na tout simplement bind. Euh, nu mu tuddati conseil constitutionnel pour mu autoriser ñu mën a voter ak bulletin yi nga xam ne euh, kii nañ leen mën a te bulletin yooyu mooy bulletin wu 19 yi may wax dañ ci génnee bulletin wu Rose Wardini rek bu ko defee ñu dem ci élection yi lépp lépp yemb na suñu dañuy fii Sénégal am nañu administration électorale bu xarañ mm-hmm. mën nañu seen liggéey dañu xarañ bu leen joxee ni instruction léegi ñu teg lépp ci raay Euh, léegi danoo gis ay candidats yoo xam ñi ngi weel seen campagne ba léegi ñoom nee na duñ arrêté mooy Diomaye président gis nañu waa PUR yi gis nañu ñeneen rek ku ne ak fem bi ngi koy defee mais ñenn ñi dañ leen yi dab yenn saa yi di leen kar ñu ne ñoom dox bi ñuy def ak di continuer seen campagne yoon moo leen ko may est-ce que am nañ droit fii mbir yu toll jàppaguñu bis ñoom ñuy campagne est-ce que loolu lu yoon maye la. non jàppuñu jàppaguñu bis mais jàppoon xam nga dañuy jëloon <clears throat> <clears throat> décret la président jëkkoon na jël. Mhm. ci si ko ci vingt cinq février. Oui. conseil constitutionnel neenal décret boobu bu conseil constitutionnel neenalee décret boobu ça veut dire que dellu nañ ci situation bi ñu nekkoon ca ca la. Mhm. bu ñu delloo ci situation bi ñu nekkoon ca ca la ñoom am nañu droit wéyal seen campagne électorale. Mhm. loolu rek la fu mu nekk nii. Euh, euh, décret bi mu jëkkoon a jël pour fixer euh, code kii convocation corps électoral bi le vingt cinq décret boobu mooy dox ba léegi décret boobu finalement nee na luñ ko. kon ñi kon ñi waruñu leen kar di leen. waruñu leen kar ñu ngi si seen yoon waruñu leen kar waruñu leen kar parce que amul amul beneen décret bu ñu génn bu fixé waat beneen dat dat bi ñuy fixé woon mooy le vingt cinq février te ñoom ci la ñu wëy te fu mu nekk nii ci la ñu wëy ba léegi tant que tant que président jëlul beneen décret pour fixer beneen date mënuñu wax ne décret ba woon bi fixé woon date bu cinq février nen neenal nañ ko. mais professeur avec tout ça est-ce que ñu ngi ci état de droit. waaw ñu ngi ci. maanaam ñi war a jaar ñi war a teg nit ñi ci yoon ñoom ñooy jalgati yoon. non boo ko jëlee ci président ba wàcc ci takk der yi wàcc ci justice bi gis nañ fi ay décision de justice yoo xam ne tey jii avant lii avant conseil constitutionnel pour la première fois au Sénégal nit mën a taxaw guerre con maanaam jiin guerre conseil constitutionnel tudd ci ay kilifa ñu jógee ci balaa loolu am na fi ay juge yu fi joxe ay décision de justice ñu jël ko teg ko fële est-ce que nekkul ni tey jii yéen la crème koroog maa ngi lay tooñ ma ni eh, ñi ma daawul gis rek laay gis quoi yéen peut-être retraité woon ngeen nekk ci seen jàmm ah, jël jàpp ni réew mi mi ngi dox normalement yu bari doo leen ci dugg mais yéen yëpp ngeen jugandoo est-ce que nekkul li ngeen di bañ moo am mooy crise ak lan moo ñu yóbbu foofu est-ce que du seen seetaan yéen tamit seetaan bi ngeen di seetaan parce que wolof nee na maanaam wañ ga ma nga bañee ca mbañe xaan ba maanaam lii raam mu egg ci ñag bi rek mais am na lu ko wane woon. waaw euh, non yaakaaruma ne seetaan nañu. parce que ñu ngi parce que ni ngeen jugee nii. waaw ni ñu jugee nii c'est que euh, euh, attente bi dafa graaw c'est-à-dire. dañu franchir wala fi lu yëngu la ko yëngal ko ëpp doole lan moo lay. voilà dafa dafa franchir dañuy franchir benn ligne. ligne rouge bu nga xam ne waaw dañuy franchir ligne bu nga xam ne waruñu ko woon franchir lii mësu fi xew. ci mhm. Sénégal mësu fi xew ci Sénégal te lii mën nañ ko méngale ak lii euh, euh, Mohamed Ta Mamadou Tandja defoon. Niger Niger. 2010 mhm. bi mu bu mu bi mu ne dafa bëgg ñu ñu yokkal ko. Euh, trois ans daal di euh, organiser référendum jox boppam yeneen trois ans fii du noonu lañ ko doxalee waaye niñ ko doxalee bu demeen ba cëppandoo bu ko conseil bi euh, bloqué wu woon dañoo am prorogation du mandat du président de la république te teguñu ko ci dara teguñu ko ci bann charte dafay dafay nur wax rek la kii defoon na Tandian ah, defoon na alors fu mu nekk nii yaa ngi may laaj ndax ndax état de droit am na fi ba léegi. naa ne état de droit am na fi ba na ya ab jaar des menaces am na ay menaces euh, état de droit jot na ay coups waaye euh, taxawaayu conseil constitutionnel bi euh, siggil na suñu réew te tax na. ñu mën a gëm ba léegi état de droit. yaa ngi wóolu Macky Sall ba léegi. problème du question. ci ni dina wàccoog. ah question ah comme moo ne dina wàccoo ak li conseil constitutionnel ñu toog déglu ko ba xam mënuma wax ne wóolu naa ko wala wóola diwuma ko waaye fu mu nekk nii xam nga rek comme li ñuy wax euh, en français chat échaudé craint l'eau froide. Mm-hmm. Euh, léegi voilà nañu toog déglu ba xam. Euh, lan lay décider parce que mënuma la wax lii lay décider walla la la lay def mm-hmm. waaye damay dama koy ñaan rek mu mu décider li nga xam ne moo gën ci réew mi maanaam mu respecter constitution bi mu organiser élection yi fileex le 2 avril mu dem mu def passation de service ak ki ko wutu euh, daal di mu dem noppalu ko ci njàmm ak Mhm. di fàttali ni ñu ngi ak professeur kër Gueye du la teelu yàgg ah. <laughs> di fàttali ni constitutionnaliste la jiite aar sunu élection doon professeur de droit constitutionnel léegi doon sunu gan ci émission focus euh, tey jii yéen a ngi ne jàpp mun ngeen jàpp ni dina wàccoog loolu est-ce que pression bi ngeen defoon gis nañ benn àjjuma réew mi xëy xam xamul kan moo woote. Mhm. keroog euh, gis nañ samedi ji passé mobilisation euh, doon une marche silencieuse boo xam ne. macha allah marche pacifique ngeen réussir ko ñu gis la communauté internationale aussi di gën a accentuer la pression. Mm-hmm. mais Macky Sall le fait que ñu woote concertation dialogue yenn détenus politiques yi ñu yolomal tuuti xaw a bàyyi est-ce que nekkul pour nalawal leen est-ce que nekkul ni la société civile dafa war a continuer fi mu tegoon tànkam lu mooy wax mu continuer di ko fa teg ba mag yi léttu ñu mbaa mu firuñu mooy mu jàpp bisu élection mais fii ak jàppul bis est-ce que war nañ ko may mu noyyi. waaw nelawuñu de. Hmm. fi ñu tegoon suñu tànk la ñu teg suñu tànk ba léegi. Hmm. waaw d'ores et déjà dugal nañu benn euh, déclaration. Hmm. de marche. damay wax déclaration de marche parce que marche autorisation dañ koy dañ koy déclarer. dem nañu déclaration de de de ma de pas de marche de manifestation. de manifestation pour samedi bii di ñëw. le samedi prochain samedi prochain. moo lay wan ne euh, teguwuñu suñu tànk. fan la euh, euh, itinéraire mbaa bi euh, mbaa bi ut ngeen itinéraire. bu décidé décidé comme le préfet moom. non non fii de bëgguñu bëgguñu sax def ko mu doon une marche. dañ ko bugg dem rassemblement la. lañ lañ ko bugg a def nga xam ne fa la ñoo daje woote nit yi ñu ñëw en masse def ko rassemblement pacifique comme ni ñu ko defee woon ci suñu marche bi rek suñu samedi rek. Mhm. loolu la ñu fas yéene defaat te àjjuma yi tamit dañu fas yéene. wax suñu imam yi ci jàkk yi euh, seen xutba yi ñu jagleel ko euh, situation réew mi mm-hmm. dimanche tamit euh, suñu waa jàngu bi daneen wax tamit seen homélie yi seen homélie yi ñu jagleel ko tamit situation réew mi donc bàyyiwuñu dara te ñu ngi dégmal yeneen forme de lutte bu fekkee ne tere nañ ñu ñu def suñu manifestation bi am nañu yeneen yeneen xalaat yu nga xam ne ñu ngi koy am mën nañ ko dérouler moo tax ma ne la bàyyiwuñu dara ñu ngi ñu ngi taxawu tem c'est que nag dañuy déglu président parce que nit tam foog nga tey bu la nee euh, déglu leen ma dinaa joxe dat dañ koy déglu démb yóbbul nañ ko ñun suñu proposition parce que dama bëggoon expliquer ne ñun aar suñu élection du ñu nekk du ñu rek kuréel bu nga xam ne day revendiquer rek. Mhm. day day toj kaas rek. def ngeen ay proposition quoi. dañoo def proposition. maanaam c'est une force de proposition. suñu nekk nañu force de proposition parce que dañu bëgg situation bi ñu ñu dépassé ko. bëgg ñu toog mais proposition yi mën nañ ci am mooy le 3 mooy le trois bi ma la doon wax nii. Mhm. ñun li suñu proposition mooy jàpp nañ ne bu ñu organiser élection yi le 3 mars. président de la république dina mën a joxe lenge yi le 2 euh, avril mm-hmm. le 31 mars wala le premier er avril élection bi dina jeex takk résultat définitif yi ñu joxe ko mu joxe lenge yi bu fekkee ne bëgg nañu réellement respecter loolu respecter euh, la constitution l'article 31 bu constitution bi buñ ko defee le 3 mars euh, à la kuli aline le 2 le 2 avril le président dina mën a dem tranquillement da mën a dem noppalu ko ci. mais au delà de ça est ce que nag euh, waruñu gën a sax tey jii wax ci processus électoral ci Sénégal parce que après code consensuel 92 ñu taxawal conseil constitutionnel boobaak tey gis na ni élection du ñàkk werante ah. mais Sénégal def na ci ay jéego. mais fi ñu toll tey. Ah. est ce que laajul nag ay waxtaan yu yaatu waxante dëgg ñu xoolaat le processus. voilà bu ñu bu ñu paree ci élection bi. Mhm. dialogue boobu muy woote. ki koy wutu moo ko war a organiser parce que li ñu fi war a joyanti ci réew mi bari na trop li ñu fi war a yoonit élect processus électoral bi yëpp dañ ko war a. càmbar parce que yaa ngi wax ay bulletins mais. dañ ko war a ñu dellal sax ay bulletins unique moo fa am léegi problème bulletin amatul ci. rek ci Afrique. mu mais moo tax dañ ko war a càmbaraat. Mhm. parce que daf ci bari ay ay ay kuli kalaaj lu nekk lañ ciy def ay ut pexe ak yooyu dañ ko war a càmbar pexe yi ñu ci mën a ut yëpp ñu ñu ñu seppi ko ci dindi ko teg ko fële. Mm-hmm. foog ñu xoog foog ñu càmbaraat foog ñu defaraat processus électoral bi foog yeneen tam institution yi ñu ñu xoolaat ko. Mm-hmm. pouvoir exécutif bi ñu xoolaat ko pouvoir judiciaire bi ñu xoolaat ko dafa laaj réforme yu xóot a xóot xóot. pour ñu mën a tegaat réew mi ci ci ci raay yu baax yi. pourtant réforme yooyu yàgg na fi parce que gis na ni scénario bi amoon na fi commission nationale de réforme des institutions amoon na fi mais presque li ñoo Amadou Makhtar Mbow liggéeyoon bu ñu ko doon appliqué duñ egg fi mais loolu lépp dañ ko jël teg fee. assise nationale jaar na fi. tey jii am na ba tey ñu koy mbubboo pour bëgg a falu. mais ku ci yéeg xool li la neex nga doxalee ko. malheureusement. mais lan lañ war a def ba su njiit yi di sàmmonteeg li ñu séq ak ñoom. parce que man damay faral di wax naan li leen dénk moomuñu ko dañ ko seeq ñun ñëpp. waaw waaw man jàpp bu dee ay réforme ak waxtaan jaar na fi mais application bi ak applicabilité bi mooy problème man jàpp naa ne ci suñu constitution yi. Hmm. war nañ ci dugal léegi maanaam kàddu li nga xam ne mooy moom mooy moom mooy mandargaal suñu suñu culture. Hmm. ni koy mandargaal dëkk mooy kàddu nit bu joxee kàddoom hmm. mu respecté kaddu dañu war a dugal. kaddu respecté kàddu ci constitution bi ba nga xam ne bu boobaa dinañ mën a euh, dugalaat lu ñuy wooye responsabilité politique bu président de la république parce que dañun dañu am président yi nga xam ne dañu mel ni ay buur di buum di buum yi te amuñu benn responsabilité politique kenn mënulu leen dara parce que kenn mënu leen yóbbu ci yoon te kenn mënul leen euh, voter lu leen daaneel parce que amul dara ci constitution bi. loolu nag la ñu war a dugalaat parce que bu boobaa buñ ko dugalaatee je pense que euh, suñu président yi bala ñuy jëlee ci yenn décision dinañ. dinañ dinañ ko seetaat bu baax. burëg bu mu jógee fi quoi. voilà dañu dañu war a prévoir possibilité bu nga xam ne possibilité révoquer président de la République comme ni ñu koy defee au Chili rek. nga xam ne mën nañu. Euh, euh, xëy wàccee président mën nañu xëy. bu ñu kontaanul ci président bi wàccee président bi. de comment ci référendum wala dem. assemblée nationale ci référendum. mën nañ ko mën nañ am na ñoo xam ne tey xam ne régime bu am régime bu parfait amul quoi. mën mm-hmm. nga dem ci régime parlementaire mu am ay conséquence am nga dem tamit comme ni nga ko waxee nii parce que bu nee ba egg ci foofu nit ñi mën a daaneel ak di yëgal waxtu ne loolu it du jur instabilité. le fait ñu ñun modèle bi ñuy demee peut-être gars yi ñoo war a wàññi seen daraja mais chaque cinq ans ñu cinq ans ñu dem élection peut gën waaye bu ñu ko dee def comme ni italiens yi di def ak ak li xew Guinée-Bissau woon ak comme li ngay wax dëkk yooyu waxtu wu ne nga mën a dindi président bi tegaat ko. non xam nga yooyu doo doo doo ko prévoir ci da nga koy prévoir ci lu yam ci li nga xam ne day ànd ak responsabilité man eh, am na ay at si gannaaw. Mm-hmm. Euh, digleel naa leen digle naa woon pour. ñu bañ ñu bàyyi deux mandats yi parce que deux mandats bu ñu élire président premier mandat bi li muy def yëpp mooy def campagne électorale pour ñu élire ko deuxième mandat mm-hmm. waaw bu bu deuxième mandat bi ñëwee tamit ci lay liggéey aslëf mais bu fekkee ne woon dañu amoon benn mandat rek mandat unique mandat unique bu gudd mandat bu gudd nga xam ne mandat wu sept ans la wala huit ans la ñu prévoir si nag possibilité pour bu ñu demee ba def trois ans wala def quatre ans ñu mën a càmbar liggéeyu euh, président bu fekkee ne kontaan ñu ci liggéeyam def na lu mu warul def ñu def référendum euh, daal di daal di daal di ko dindi. parce que foog ñu dugalaat jàpp naa ne en tant que constitutionnaliste foog ñu dugal dugalaat foog ñu dugal responsabilité président. parce que c'est pas normal que mu am euh, pouvoir yi yi mu am yëpp te amul benn responsabilité. gardien de la constitution chef suprême des armées te ñu nekk président nekk chef de parti. kenn mënul assise assise yi waxtaanee woon nañ ko. daanaka daanaka buur lañ fi buur lañ fi élire. loolu ne loolu nag moo loolu moo war a dañ loolu bés bu dañee rek di nga gis dinañ dinañ am équilibre ci ci diggante institution yi. Mhm. dañu war a wàññi bu baax. Euh, pouvoir du président de la République dafa il a trop trop de pouvoir ces mm-hmm. pouvoirs sont hypertrophiés dafa ëpp mm-hmm. waaw boo bu su ñu defee loolu ba gën a euh, euh, répartir pouvoir yi ci ñeneen gën a indi ay contre pouvoir yu bari bu boobaa dinañu am état de droit bu dox dinañu am démocratie bu dox mais tant que ñu ngi jël benn nit co condam teg ko ca kaw lu ko neex mu def lu ko neex mu wax mais du ñu am démocratie bi nga xam ne moom la ñu bëgg. waaw réforme yooyu est-ce justice ci jiitu. non justice ci la bokk. parce que justice justice kay ci la bokk. justice bi foog mu dellu jëlaat indépendance xam nga xam nga est-ce que xam nga ne constitution bi dafa ne justice euh, pouvoir la. pouvoir la pouvoir la comme yeneen yi. ñetti pouvoir ñetti pouvoir yi ñoo am waaye justice. dañ ko wax ci constitution bi ne pouvoir nga waaye dem ci euh, texte yi ci ci loi bi ne ko yow doo pouvoir hmm. yow doo pouvoir doo dara yow euh, président bi mooy mooy président mooy jiite conseil supérieur de la magistrature euh, ministre mooy tegu foofu conseil supérieur de la magistrature mën nañ def mën nañ def ay consultation à domicile bu ñu waree jël décision en assemblée général ñu def consultation à domicile xam nga consultation à domicile boo wéetee ak ak benn benn magistrat ne ko ah dañu bëgg a vote dañu bugg a changer telle chose euh, est-ce que d'accord nga ku changer bu neen d'accord moo bu fekkee ne euh, fit bi amul fit bu fekkee ne dëgërul te te d'accordul eh bien naan day naan d' accord na parce que dafay ragal ñu sanctionné ko dafay ragal ñu affecté euh, ci dëkk bu. mais tey bu leen bàyyi woon tey ñoom ñu am liberté totale boobu ngay wax est ce que duñ yóbbu ci république des juges. non nag lépp da lépp da nga ci da nga. boo koy def boo koy boo koy def da nga koy équilibré da prévoir toujours ay garde fou. ay garde da ngay prévoir toujours ay ah quel que soit le pouvoir. prévoiral toujours ay garde-fou. mais est-ce que du njëkkee wàññi ci wàññi doole procureur man des fois ma ne procureur est-ce que nekkul moo ëpp doole président bi sax maanaam mun na fekk deful dara mu xëy rek diñ la ci place na la xaaral. waaw procureur am na doole amul doole. comment. amul doole parce que dafa dépendre ci ministre de la justice daanaka mënul autosaisir nu mooy ministre de la justice wala bu koy def tam dafay am. Euh, accordu ministre de la justice. Mm-hmm. ah am na yeneen yu mu mën a def yi nga xam ne ci coobare boppam la waaye du ci li li nga xam ne dafa am importance. Mm-hmm. mais lépp li am importance procureur bi sañu def lu nga xam ne ministre de la justice bi àndu ci. Mm-hmm. moo tax ma ne amul doole ci ci ci wàll woowu. mais am na doole ci beneen wàll parce que euh, lu mu yëkkati rek euh, diggante article quatre-vingt code pénal ba ba yen ba ci kaw lépp benn bépp euh, inculpation chef d'inculpation bu mu yëkkati rek euh, juge d'instruction bi magistrat bi toog bi mhm. mënu ci dara mhm. bu waxee ñu tëj nit dañu ci tëj loolu yëpp li ko indi mooy amul juge des libertés fii dañ fi war a ut dañ fi war a indi tek juge des libertés te juge bi nga xam ne mooy défendre population parce que procureur normalement Euh, moo société bi yëpp la waroon a toogal waaye fii Sénégal dafa mel ni pour procureur bi toogalul société bi benn pàcc rek la toogal. Euh, moo tax ñu war a am juge de liberté mu nga xam ne dina mën a défendre ñi nga xam ne ñoom la ñu topp ci yoon. Mhm. léegi ñi ngi daaneel jeexal nañu moo dina may question bi rek mooy libération détenu politique yi anam bi mu amee dem Aïssata Tall Sall indi na ci ay leeral finalement ñu bari baa ñu ne décrispation la pour gën a woyofal réew mi. mais aussi tey prison yi ñu gën a wàññi lim ba fa ne mais tey doo xëy dégg comme Ngagne Demba Touré évoqué nga ko sànq ñu xëy jàpp ko parce que dafa nekkoon sous mandat d'arrêt international. mu mel ne état bi day suuf souffle le chaud et le froid maanaam di mat di ëf. mais est-ce que logique boobu nekkul dañ ci waroon continuer rek pour gën a parce que gis na ni bi ko commencé di def nit ñi seen xol di giif mais. waaw waaw mënoon nañ ko continuer c'est vrai bu doon sama sago de ñu maa ngi ko doon rafetul bu baax bi ñu ko commencé vraiment dëgg yàlla euh, rafetul naa ko. dama ne ne sax lii la waroon njëkk a def waroon nañ ko def bu yàgg euh, mais nag euh, def lu baax euh, amul app saa yoo ko def. soo dee yoon may na ko. anam yi ñu leen bàyyee am na ci ñi nga xam ne dañ leen bàyyi te amul benn benn am waxuñu leen dara. Hmm. jugé buñ leen dégluwuñ leen loolu moom normalement <laughs> war àndul ak yoon waroon nañ leen déglu au moins mais am na ñi nga xam ne nag c'est vrai déglu nañ leen ba ba bàyyi leen mais daal man daal jàpp naa ne li am importance parce que ñu ci bari ñi ci si ci bari boo leen déglee ñuy def seen témoignage ñu si ñu ci bari dañ leen dañ leen jàpp te ñu leen woon jàpp donc que ñu bàyyi leen c'est tout à fait logique léegi léegi nag léegi nag jàpp naa ne dañ leen war a dàmp surtout ñi nga xam ne defuñu dara ñu jàppaleen tëj leen sept mois huit mois ñu ñàkk seen liggéey ñàkk seen lépp euh, te léegi ñu ne leen génne leen mën ngeen dem euh, génne bi rek doyul dañ leen war a dàmp. Mm-hmm. dama indemniser. waaw dañ leen war a indemniser. mais est-ce que prévoir na ko fii. loo genre na ko. prévoir na indemnisation. Mm-hmm. waaw dañ leen war a indemniser. Mm-hmm. Euh, Diomaye candidat mi ngi ci kaso bi dafa war a génn mook Sonko wala. xam nga am na dëkk yi nga xam ne. kandidaa euh, bi dafay dem ci élection yi nekk ci nekk ci nekk ci kaso bi loolu daf koy daf koy jox doole sax. gis na Ama Amadou Niger. Ama Amadou Niger mu dem ba deuxième tour. mu dem na ba deuxième tour. Mm-hmm. daf leen daf koy jox doole. Mm-hmm. moo tax euh, euh, Diomaye tëj ko ci kaso bi pour motif bi ñu ko bi ñu ko tëjee woon ci kaso bi. Mm-hmm. jàpp naa ne mënoon na ñàkk mënoon na ñàkk. Euh, ñu bàyyi ko mu euh, mu def campagne am parce que li ñu ko tëjee woon mooy benn tweet bu mu defoon. Euh, ci magistrat yi ci ci loolu lañ ko tëjee woon. Mhm. ci mujjantal bi lañ lay lay ñëw yokkaat ko ci yeneen yokkaat ko yeneen ak kii chef d'inculpation mais defe naa ne yooyu yëpp pour fexe mu bañ a génn rek la woon te jàpp naa ne moom daal ci dëgg-dëgg. waroon nañ ko mën a bàyyi mu génn def campagne électorale comme moromam yi c' est un principe d' égalité qui est prévu par mu ngi ci euh, code électoral bi. Mm-hmm. Euh, L trente euh, du code électoral moo wax ne cour d' appel dafa war a fexe ba candidat yëpp nekk sur un pied même pied d' égalité. Mm-hmm. maanaam ñu yemale leen ba nga xam ne dinañ mën a dem ci joŋante bi ku ci ku ci mën sa morom. gagné. Mm-hmm. professeur euh, kontaan nañu looy tàggoo. waaw li may tàggoo rek mooy ñaan réew bi eh, jàmm ji dellu si. Mm-hmm. lan nga bëggoon wax te laaj ñu la ko. nit si eh, maanaam tàppe seen xol yi. Mm-hmm. Eh, fexe ba nguur gi di ñaan suñu suñu nguur gi tamit ñu ñu def lépp pour respecter. ak suñu constitution suñu charte ndey wu réer mhm. élection yi le le deux mhm. bu ko defee réew mi nekk ci jàmm ñi war a liggéey delluwaat liggéey mhm. waaw bu dul loolu après le deux mën na dugg ci crise bu dul loolu après le mën nañu dugg ci crise bu boobaa doo doo wax ne ñun waxuñu ko woon magum waxoon naa ko wax na waxoon naa xam nga yaa mooy wax sànq naan ma yéen daanaka yéen seen faute la parce que teelu leen wax mais ñu ngi wax ñu ngi wax bind nañ fi ci diggante eh, trois ou quatre ans bind nañ fi lu mat quatre quatre manifestes. ñoom Kader Boye ak euh, euh, bi mujj bi man ak Serigne Diop ak Kader Boye ak Alioune Sall. Ah, ak Alioune Badara ak ñoo ko bind. waaw ñoo ko signé à cinq. Euh, moo lay won ne euh, ñun du ñu ay euh, universitaires yu yaafus du ñu ay universitaires yi nga xam ne euh, réew mi soxalu leen ñun réew mi moo ñu soxal. jërëjëf dëgg yàlla. jërëjëf Guèye ah. jërëjëf yow sama papa nga. jërëjëf sama xarit nga ku baax nga. jërëjëf. waaw parce que heure bu ma la wooyee des fois sax ma bëgg a xam dara woo la laaj la waaw mais nga baaxe ma ko généreusement. di la nuyu bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu boroom yàggal leen fi. amiin wala fi ñu naan mag bu baax daf fee war a yàgg. amiin waaw surtout que jamono joo xam ne da ngeen waroon doon retraite dama ne Macky Sall ko rek la ma laa woo ma la Macky Sall moo leen waroon noppal te noppalu leen. <laughs> Ah, mais di la ñaanal. Ah, euh, di di fàttali ni yaa jiite aar élection sunu sunu élection ah. doon professeur de droit constitutionnel nekk constitutionnaliste. Euh, lu ëpp fanweeri at ngi réew mi bari na fi li ñuy wax ci constitution. Euh, mu yitteel la jëm ci wàllu société civile tamit am taxawaay bu mat sëkk. di la gërëm bu baax di la sant seen émission focus Omar Bun Xataab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi. moo Modou Diouf euh, abdu toog ak Ablaye nekkoon ci régie bi di gërëm ñëpp di leen sant di ñaanal ñëpp jàmm beneen émission focus beneen àllarba incha allah.